internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ay xibaar yu wér ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. yi ñuy bàyyi xel ci seen site international ak suñu différentes plateformes yi ñu leen di nuyuwaat bu baax. Euh, ñu leen dalalaat tey suñu émission sociétale euh, penc mi ñu fas yéene cee nag dalal ki nga xam ne moom mooy euh, monsieur Omar Diop moom nag moom mooy chargé de la communication pour LISCA Ligue sénégalaise contre le cancer xam ngeen ne ñu ngi ci octobre rose muy weer boo xam ne dañ ko jagleel xeex wàllum cancer ñu fas yéene rek waxtaan ak moom ci sensibilisation ak daal bépp action boo xam ne ñu ngi koy mëne euh, ngir xeex euh, jàngoro jooju balaa may sori kon ma bàyyi ko mu nuyante ak euh, mbokku internet yi waaw maa ngi leen di fay seen info point net di rafetlu seen taxawaay si octobre rose bi parce que c'est pas pour la première fois ngeen fii ñëw. donc euh, il y a deux ans de cela defoon nañu benn interview donc euh, ça veut dire que vous portez vraiment un intérêt au combat contre le cancer. sama laaj bu njëkk rek dañ naan octobre rose peut-être am na ñu koy dégg euh, te xamuñu lu waral léegi nag lan mooy octobre rose. waaw octobre rose parce que question bu baax la parce que dina tax nit ñi xam lan moom moo octobre rose ndax concept la boo xam ne ñu bari ñu ngi koy dégg. xamuñu fan la juddoo naka la taxawee donc aux États-Unis la tàmbalee benn jigéen bu ñuy wax Evelyn Loder moom moo amoon cancer ween yàlla def du euh, mu ci ba am ci wax dëgg yàlla ay résultats yu yaakaaru mu ni ah ndekete cancer ween dinañ ci wér kon donc dinañ ci wér boobu dina fekk mu fësal ko à la face du monde pour nit ñi mën na xam ni ku faju ci cancer ween ñu ci wér mm. donc loolu moom moo tànn nag weeru octobre ñu euh, ci weeru octobre bi dina ci takk ruban xam nga rose comme mooy couleur jigéen donc loolu moom moo tax mu tànn euh, rose donc loolu moom moo indi concept octobre rose euh, donc mu dox ma dem en France en 1994 donc ñun Ligue sénégalaise contre le cancer ñu li ko def fii au Sénégal en 2010 donc di ci liggéey ba wax dëgg yàlla léegi pratiquement mën naa wax ni tout Sénégal xam nañ dama octobre rose ngi lay jaajëfal ci leeral yooyu sama laaj yu rek li ngeen di xeex euh, jàngoro yi la ngeen nekk gën a fës ci lii si ñaari feebar yi ñu mënoon xam rek la. waaw jàngoroy cancer mën nañoo wax ni jàngoro boo la boo xam ne benn doomu aadama mënul wax ni mën naa ci mucc ngay mag ngay ndaw ngay góor ngay jigéen. ñëpp mën nañu am cancer li tax mooy cancer mi ngi juddoo ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee cellule pàcc bi gën a tuuti ci doomu aadama nga xam ne moom mooy formé wu defar der mooy formé wu defar euh, deret moom mooy formé defar cëru doomu aadama yëpp pàcc yooyu nag bi ñuy judd maanaam cellule yooyu bi ñuy judd chaque euh, jour dafa am ay milliers de cellules yu ciy judd il y a un milliard cellules yu am ñuy dee ñu koy tuddee remplacement cellulaire Euh, donc au moment bu nga xamee ne am na yoo xam ne dañuy judd mën nañ judd te baaxuñu yooyu judd te baaxuñu nag dañ leen di envoyé message bi leen rey seen bopp bu ko defee bu fekkee dégg na ndigal mu rey boppam ñu bokk processus mais bu déggul ndigal dafay continuer mais du continuer lekk moom rek mais dafay def ay pàcc di former yeneen cellules yoo xam ne baaxuñu bu ko defee moo tax ñu naan la surtout pour cancer wenn làmbatul ndax gisuma benn doon donc cancer noonu lay juddoo ci doomu aadama donc euh, ki nga xam ne wax naa ko léegi am na xaalis ki amul xaalis ku ndaw bi jigéen bi yëpp war na mën na mën na dal ku nekk cancer donc un euh, peu pour camper le sujet loolu mooy cancer euh, mu nekk beneen cancer boo xam ne xëy na cancer col de bi nga tudd léegi moom xam nañu ni koy joxee ndax benn virus la boo xam ne wax dëgg yàlla scientifique yi gëstu nañ fi ba xam ko mu tudd human papilloma virus ñu gëstu ba defar ci sax li nga xam ne moom mooy ñàkk bi vaccin bi donc euh, moom daal moom lañ ci gën a xam mais yeneen cancer yi dañ lay wax ni la ay facteurs favorisants euh, dafa yoo xam ne boo koy def dañ ko tuddee facteurs donc euh, lu mel ni di tox cigarette di naan sàngara di lekk lekk bu bon di lekk trop sucré trop salé trop gras yooyu yëpp ay facteurs favorisants la pour yenn cancer yi surtout cancer wu ween jigéen nàmpalu wala jigéen boo xam ne dafa teel a gis baax wala mu yeexam ba bàyyi fóot yooyu yëpp ay facteur favorisant la waxuñu nag ku ci am benn facteur rek da ngay am cancer déedéet mais mën ngaa dajale facteur bi bëri tamit doo am cancer mais ba dajale facteur yu bari am nga malchance def cancer. bu dee cancer du col la. waaw bu dee cancer du col ni ma ko waxee léegi tout à dafa am benn virus bi nga xam ne moom moo koy joxe ñu koy wax HPV human papillomavirus. Euh, loolu jigéen ñi ñu koy laale soit ci sëy wala mu euh, lëkkaloo ak góor te xaj na sax yegg ñu fenn fi mais virus bi mën na ko laal mën na sax bañ a yegg foofu par exemple fenn foo xam ne virus ba laal na fa nga laal ko après laal sa kanam virus boobu mën naa dugg donc du ku mën am cancer bu uti dundalkaay ku sëyul sax mën na ko am donc euh, mais chance bi nga xam ne moom la doomu aadama am mooy virus boobu quatre cent boo jëlee téeméeri jigéen yoo xam ne laal nañoo virus quatre-vingt-dix yi dañ koy éliminer dix yi ñoom ñooy continuer virus boobu dix yooyu nag aussi lu ñu xeexee rek def cancer bi comme de l'utérus virus bi di nekk ci buntu buntu tunjurukaay bi di def ay coppeeku maanaam ay changement di def ay coppeeku ba nekk ay cellules précancéreuses waaw loolu mën naa durer dix quinze ba vingt ans pour mu dem nekk nag soo ko nekk cancer xam nga kon waxoon naa léegi si njàlbeen bi euh, feebaru buntu buntu tunjurukaay boobu ñu koy wax cancer col de l'utérus am na vaccin donc boo doublé vaccin bi ak dépistage bi rek yàlla mën na ko am nga chance bu bañ ko bañ a a am feebaru cancer du col de l'utérus d'ailleurs am na pays yoo xam ne sax maanaam léegi pratiquement bareetu ko te contrairement à suñu pays yi nga xam ne moom bu jiituwul mooy deuxième cancer moom moo cancer du sein ñoom ñaar ñoom daal ñoom ñoo yor raw bi quoi donc loolu a am cancer du col de l'utérus. ñu ñëw ba léegi ci biir euh, bi ana lan lay demee. waaw dépistage bi maanaam jigéen ñi nga xam ne euh, dugg nañ ci néegu sëy ndax wax naa la ñu may na la temps dugg nañ ci néegu sëy ba am na leen deux trois ans war nañu mën a dem dépistage la ñu seetal leen seen buntu buntu njurukaay ndax soit virus ba nekk fa wala cellule précancéreuse yooyu nekk fa dépistage bi léegi am na dépistage bi nga xam ne organisation mondiale de la santé daf ko daf ko maanaam daf ko validé mooy euh, nga xam ne dañuy seet buntu buntu njurukaay bi jël li nga xam ne moom mooy acide bokkal ko ci tuuti vinaigre genre vinaigre la rek bokkal ko ci buñu dugg ci cujurukaay bu ko defee dafa am benn coloration boo xam ne moom lay joxe coloration boobu nag ñi euh, ñu koy jàngal dañ koy mën a ràññee ba nga xam ne bu ñu gisee mu def coloration boobu dañuy xam ne ni cellule fréquenceuse yooyu ñu ngi ci buntu buntu cujurukaay bi bu ko defee am na tamit ay jumtukaay yoo xam ne ñoom ñoo koy faj te LISCA def na ci ay jéego yu bari ndax dem nañ ci presque 38 localités ci Sénégal fii Dakar rek yamuñu Dakar dugg nañ ci dëkk bi daan formé sage-femme yi plus de 1600 sages-femmes ci technique de dépistage boobu ba pare jox leen ay jumtukaay yoo xam ne ñu gisee cellule précancer yooyu la tëdd mën nañ ko faj ci lu gaaw kon dara euh, ba pare faj na ko cher donc euh, cancer bu tëdd mën na wàññeeku bu baax fii ci Sénégal. cancer du sein dépistage am waaw cancer du sein dépistage am moom déjà dañuy digal. jigéen ñi nga xam ne toll nañ ci xale yu ndaw commencé am ween ñuy euh, ba ba ba toll si yenn yi jigéen ñëpp sax d'ailleurs dañ koy digal ñuy def d'abord dans un premier temps li ñuy tuddee autopalpation autopalpation maanaam bi ngay defal sa bopp seetal sa bopp sa ween autopalpation boobu jigéen bi mi ngi koy def heure boo xamee ni gis na baax ba set ñetti fan ba ñeenti fan ya sa topp moom dafay dugg ci biir néegam mu jàkkaarloo ak seetoom mu bàyyi ween mu mën koo muur dara yaakaar naa seetu bi ndax mu mën a xool ween yi à ci ci seetu bi voilà bu xoolee wen yi ci seetu bi bu ci gisee benn màndarga benn coppeeku maanaam der mu ween bi mel ni dafa teg li ñuy wax peau d'orange wan ni dafa am ay taches yu ñuul dafa am ay put put wala mu mel ni ci suween bi dafa mel ni luy delluwaat dugg ci biir wala mu gis ni ween bi na mu tëdde woon bu ngay mel ni luy changer position benn weer weeru jigéen en général du ñu tolloo mais benn bi bu demee ba di ëpp morom bi lu bari tamit wala lu gis yooyu yëpp waxuñu boo ko gisee ci sa weer rek cancer mais dañu boo ci gisee yooyu war nañu ko jóg dem kër docteur mu xoolal la ko donc xool bi ci laa tàmm bi mais doo yem ci xool bi rek da ngay làmb tamit jël sa loxo euh, jël loxo bi wër ween bi un ko partout boo ko bàyyee da nga koy xaaj ñaari ñeenti paat sax pour nga mën ko xool ndànk-ndànk du raay ngir weer bi di làmb ndax doo ci daj benn doon doon boo ci doon rek da ngay boo ci daj rek da war a taxaw ci doon boobu nga làmbaate ko bu baax ba nga xam ne lii doon la te fii laa ko gis bu ko defee nga dem wax ko war ko sa docteur. ensuite nga yëkkati loxo yi tamit ci kaw yëkkati loxo yi jariñ bi mu am mooy day tax ween yi jóg nga mën a xool ba mu ci suuf dinañ dem sax ba jigéen bi ñu wax ko nu tëdd surtout jigéen ñi nga xam ne seen ween dañoo daanu donc ñooñu dañu war a tëdd pour mën a làmbatu bu baax ween technique boobu déjà jigéen koy utiliser tous les mois mm-hmm. da ngay xam sa bopp ndax da ngay xam ne say wen ni mu mel heure bu ci benn changement bu ndaw amee rek di nga koy da nga koy daal di gis mën a jël euh, mu tudd précaution yi ci war nga yem foofu tamit di nga jël ñaari catu baaraam yi di bës ci suween xool ndax dara dina ci génn soit euh, benn kii boo xam ne euh, neexul wala mu génn deret bu ci génn rek ba yi mooy wax yëpp ba ñu conseillé la ne war ngaa dem ci ween rek tamit da nga ci war a boole ko xotaan yi nga raakle ko bu baax parce que cancer ween mën naa juddoo ci poxotaan nga xool ndax doo ko gis benn benn benn benn ganglion bu fa nekk benn donj bu fa nekk bu ko defee loolu moom boo ko tàmmee di ko def yàlla mën na la suñu bëri ci cancer ween. beneen prévention bi nga xam ne moom la ñuy jigéen jigéen ñi nga xam ne am nañu au delà de 40 ans de 40 ans à 74 ans. dañ leen di wax ne leen ñooñu war ñu def ñaari weer yu ne ñu ñaari at yu ne pardon ñu def mammographie ndax mammographie bi rajo weer na rek moom mën naa gis loo xam ne làmp mënu koo daj bët aussi mënu koo gis donc pointu na pointu bi nga xam ne euh, lu doñ tuuti tuuti tuuti moom mën na koo gis te su ko gisee tamit lu euh, mammographie moo lay wax ni ne lii cancer ween la te dafa am indication yoo xam ne moom lay jox docteur bi bu ko defee indication yooyu mu jëm docteur yi bu laajee ñu jël yeneen matuwaay dafay jël donj boobu soit mu def benn fonction mammaire wala wala mu mu dindi ci donj boobu daal yóbbu ko jël laboratoire bi ñu analyser ko résultat boobu ñun bu ñëwee moom mooy wax donj bi cancer donj cancer la wala du moom donc processus bi noonu la donc yooyu daal ku ko ci def boole matuwaay yi nga xam ne moom la ñu waxoon léegi bu lekk lekk euh, bu wér bu sell di di dox aussi sport tamit facteur protecteur le contre cancer yi am na tamit yeneen yi nga xam ne euh, ñoom digaluñ leen dañ leen di digal chaque année ñuy def mammographie ñooñu mooy ñan mooy jigéen li nga xam ne dañuy bokk ci famille à cancer li ñu lañ leen tudde soit euh, yaay amoon na ko tante amoon na ko euh, ainsi de suite kon mën nañ ko doon mën nañ ko doon voilà très mais doon bi tamit loo xam ne dafa nekk automatique bu ndu boo boo bokkee ci famille bi rek da nga koy am déedéet bi dañ koy am ñun ñëpp mën nañ ko bañ loolu moo tax ñooñu nga xam ne ñoo bokk ci famille yooyu ñu leen di conseiller ñoom tous bi nag am na âge boo xam ni ci ko mën a def mais xale yu ndaw yu ma tuddaloon léegi nga xam ne tamit cancer bi am na fa ñooñu bu dee gëstu euh, ñu tuddee ci échographie mammaire ñu leen di defal donc euh, yooyu yëpp ci biir gëstu yi cancer bi mën a dellu ginnaaw ñu ngi wax si tolluwaayu ñaari feebar yooyu ci ci Sénégal seen tolluwaay naka la naka la waaw pour campesine jeune bi foofu dañuy wax tolluwaayu cancer yëpp ci Sénégal naka la toll ndax euh, le CIRC mooy le centre international de recherche sur les cancers moom dafay defal adduna bi yëpp seeni cancer nu mu toll. mu ni nag fii si Sénégal ci deux ans yi nga xam ne moom lañ dool parce que par deux ans lañ koy def dinañu am onze mille nouveaux cas de cancer maanaam yi ñëw dolleekuwaat ci cancer yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon onze mille nouveaux cas de cancer yooyu nag séddalee. dañuy wax ni cancer bu buntu buntu ci biirukaay moom moo jiitu ak euh, junni ak juróom-ñeenti téeméer bi 1900 nouveaux cas bu cancer bu topp ci cancer bu ween cancer bu ween moom mi ngi toll ci junni ak juróom-ñetti téeméeri euh, nouveaux cas maanaam 1600 nouveaux cas topp ci cancer bu foie avec 1084 nouveaux cas d'ailleurs cancer bu foie boobu sax dinañ ci taxaw tuuti parce que c'est important qu'on en parce que cancer du foie au Sénégal moom moo nekkoon le premier cancer au Sénégal. li tax mu dellu ginnaaw ba nekk tey le troisième cancer au niveau du Sénégal parce que vaccination bi dafa exister sur le programme élargi de vaccination au Sénégal c'est gratuit ñu koy defal xale yi loolu moom moo tax mu xam quand même mais quand même 1084 cas c'est quand même toujours inquiétant. topp ci cancer euh, de la prostate cancer ORL yi yeneen cancer yëpp nag foog a donc noonu la tëddee fii ci Sénégal. wax naa ko léegi donc ñaari cancer yi cancer bu bunt bi ci ak cancer bu ñoom ñu jiitu fii ci Sénégal soo gisee LISCA ñu leen di gën a dégg wala di leen gën a gis ci ñaari cancer yooyu parce que dafa gën a bari ba pare mortalité bi aussi dafa am importance trop. donc mën nañu wax ni quand même euh, cancer au Sénégal c' est un vrai réel c' est un réel problème de santé publique donc war nañ ci gën a dolliwaat suñu taxawaay am tout cas moom. ñu ngi ciy bay suñu waar bu baax a baax baax a baax ci xeex français bi au Sénégal ndax tey ji nii soo gisee ñu nangoo déglu wala nangu di waxtaane cancer mën naa wax ñu ngi ci bari Niska ndax ñoo accès suñu liggéey dans la sensibilisation l' information envers les populations dañ daan yeewu 4 heures du matin jël suñu camion solo des marchés aux passants nga xam ni saa bruit de monde à cette heure là waxtaan sur le cancer parce que da nga daan gis au départ mu dajale dix personnes ñu cancer ñu dem bàyyi la fa ñu móodu la ñu laal bant ainsi de suite parce que tabu la woon ñu ne nag stratégie bi ñuy taxawal mooy dem dans les de grande fréquentation mel ni marché au poisson booy rafet am ñoo nit ki lu mu bëgg bëgg taf ay noppam dina la dégg li te nit ñi nag bu ñu commencé dégg loolu gis ni ah lii ñii di wax kat c'est important kon war nañu déglu ndax cancer bi mën ñu moytu bu jógee pass marché aux yi hebdomadaire yi lu may dem foofu waxtaan yi distribuer ay flyers plus cent cinq cent mille flyers distribué donc euh, loolu daal moo tax Sénégal bi waxtaane cancer loolu moo tax Sénégal nga dégg fi octobre rose euh, octobre rose tamit ñuy wax ni dañ ci dañ ci kontaan parce que même quatre pays africains ñoo nañ Sénégal di xool ñun la ñu réussir lii pour yóbbu ko ci seen dëkk. lu bi man ci octobre rose boobu sax la ñuy ñëw euh, seen xeexu cancer moom euh, seen liggéey de tous les jours la mais octobre rose bi euh, ci ngeen di gën a bëri ay activités yaakaar naa ci la campagne bi di gën a di gën a tar. ana bi ngeen commencé campagne ak léegi lan ngeen defagum ak it lu des. waaw bi ñu commencé campagne bi léegi damay wax ni ren mooy suñu treizième édition ñu ko looy def pendant treize ans loolu moom moo tax ñu gis ni mayonnaise bi la mayonnaise à prise <laughs> léegi à prise donc euh, biñ ci defagum nag wax dëgg yàlla am na solo donc soo xoolee réalisation yi daanaka consulté nañ ci lu tolloog euh, trente deux mille femmes sur le cancer du du tey jii may wax ak yow depuis le premier. ay médecins yi ñu nekk fii la disposition des populations bu ñëwee dinañ ne seet doo ci fay dara donc les grandes consultations depuis trois ans yi dañ ko xaw wàññi tuuti nag Covid bi moom moo taxoon mais modèle bi bi ñu ko tegee aussi gis nañ ni c'est un bon modèle yaa fekk même l'année passée li ñu ëpp li ñu doon am diñ daan def les grandes consultations parce que c'est des consultations de tous les jours nit ki heure boo disponible rek ñu daan ñoom seet doo fay dara euh, seet la fii doo fay dara bi aussi importance bi ci nekk mooy bu ñu la gisalee dara ñoo xam ne dañ ci am sikki sàkk ci ween bi dañ lay jox bon de mammographie gratuite parce que kooku gisal doñ boobu ci ween bi wala sikki sikki boobu ci ween bi nga ne ko dama wuti ñetti junni mën na ko bañ a am mu dem traîner avec son mal mu def un cancer ñetti junni bi ma tudd li ko indi mooy xam nga canceru ween wax naa léegi mammographie bi ci euh, moom mooy moom mooy li mën a ko mën a seet mm. mammographie boobu soo demee dans les hôpitaux publics yaa boo demee dans le privé yaa ngi fay 60 000 francs yàlla def nag nag depuis euh, jamono yàgg ISCA lëkkaloo ak ay médecins privés waxtaan ak ñoom ñoom ñu nangu ñoo wàññil euh, mammographie boobu defal ñu ko 30 000 donc une réduction de 50 pour cent ñun ñu ne ba tey 30 000 bari na ñun beneen 15 000 francs fexe teg ko ci bu ko defee ci bëgg a def mammographie bi dépistage am 15 000 francs rek lay gànnaayoo ñoo fi jox ko bon rose du fay fax 15 000 francs mais bu demee sa médecin ba lay fay 15000 francs yi bu ko defee à la fin de la campagne bi yónnee ñu facture bi ñu fay ko mais ki nga xam ne daal ñëw na fii ñu seet ko gis kenn ñu sikk sàkk ci yoon ñu am donc loolu dafa gum ko ci cancer ween cancer buntu bi ci jurukaay bi gisal buntu bi tolloog vingt-neuf mille pratiquement donc euh, ça veut dire que yàlla durant toutes ces campagnes là ñu ngi gis jigéen ñi mais dinañ ci ay bons de mammographie yu bëri de chiffres yi dama ko jàpp sur les bons de mammographie gratuits on est à de 2 000 de mammographie gratuits xam nga benn bon de mammographie gratuit ñu ngi coûté 30 000 francs yooyu yëpp def nañ ko ci campagne bi ci campagne bi nga xam ne moom la ñuy def tamit bu dul octobre rose sax wax léegi dañuy liggéey parce que LISCA bu ci ñaari cancer yooyu lay liggéey day liggéey pendant toute l'année mais dafay liggéey aussi sur euh, octobre rose mooy toute l'année dañuy liggéey et surtout les cancers yamuñu ci cancer pulmonaire ah gis nga ay yoo xam ne ñu leen di accompagner plus de 1500 malades yoo xam ne jusqu'à moom moo seen faj ba ñu tàmbalee du faju ba léegi foofu nag ma taxaw fi tuuti ndax actuellement nii dañu nekk ci ay jafe-jafe. Hmm. ndax xam nga gàtt bi faju temps benn malade bu cancer benn bu cent mille deux cent pratiquement des millions. léegi ñeneen que le bilan diagnostique boo koy tàmbali ça peut commencer entre 300 ba 500 mille francs demagul ci opération bi demagul ci chimiothérapie bi demaguloo demaguloo ci paj bi yëpp donc. paj bi waaw du ñuy wax ni gi du jàppale mais su doon leen di am na lu muy def nag parce que ñu am nañ benn subvention boo xam ne depuis euh, xawoon na yàgg ñu ñu ko doon jox c'était dix millions par an. mais après bi loolu passé def nañ ko euh, vingt mille francs par an durant Covid bi mu ñëwee. Euh, ñu xam ni jafe-jafe ñu ngi recevoir une subvention de vingt millions par mois. par an par an donc 20 millions par an yooyu nag xam nga pratiquement fonctionnement wu liggéey bi la rek ndax gis nga siège bi ñu nekk nii ah, moomu ñu ko dañ ko luwee am na ñuy ñun ñuy wax ak ñi man ñuy wax ak yéen am nañ fi quelques emplois yoo di fay dafa laaj ñu jënd ay matériel dañuy fay ndox dañuy courant donc y a des charges mais euh, leneen li nga xam ne nag quand même parce que du euh, ñu ko xeeb comme tey bi nguur bi doon lañu jël def suñu liggéey aussi plaidoyer bi daf ci bokk fay le plaidoyer parce que dañu gis feebaru cancer faj bi li ci gënoon pàcc bi fi li gënoon na metti gën ci cher moom mooy la chimiothérapie ñu euh, def vraiment un cri du cœur président de la république recevoir yi ñu waxtaan ak moom ñu fajum cancer cher na il faut mu dugal ci loxoom ci loolu la ñu yëkkati un milliard def subventionné ko sur euh, la chimiothérapie des cancers gynécologiques maanaam cancer yooyu ak cancer du depuis 2019 am na ci bari gratuit yamuñu foofu tamit tey jii nii euh, radiothérapie xam nga 150 mille lay jar fii au Sénégal boo demee laajte déjà privé bi am na ku def fii rek au Sénégal mais c'est des millions que ça lu tax nag mu yem ci 150 mille parce que ancienne machine bi fi nekkoon mooy cobaltothérapie boobu nga xam ne moom moo paaloon amoon fi coow 150 mille la donc bi ñu defee investissement yi mu coûté ay milliards il question que tarif bi xaw a yéeg mais ñun LISCA ñun ñoo def toujours demander à ce que vraiment le tarif dañ ko bàyyi à 150 mille francs loolu moom moo def ñu des à 150 mille mais ñun mooy fexe ba koo xam ne am nga feebaru cancer fii ci Sénégal ba fay dara loolu moom mooy suñu objectif te yaakaar nañ ni dañ ko atteindre. Euh, li nga xam ne tamit ci bébét yi la bokk euh, peut-être réaliser buñ ko mooy maison de vie ndax maison de vie dafa am importance ci liggéey bi ñuy def. ndax dañuy gis ay malades yoo xam ne boo demoon hôpital de Nantes temps ah, muy ñuy fonctionné yoo xam ne dañuy fanaan dans les couloirs de l'hôpital c' est pas parce que amuñu fu ñu dëkk mais dañuy jógewul Dakar mm-hmm. dañuy jóge souvent dans les régions mm-hmm. amuñu fi famille d'accueil surtout boo defee radiothérapie nag ndax boo koy def da nga koy def tous les jours du lundi au nga ñëw présenté ko nga kooku mënul rentre fu mel ni Thiès gi sax nga xam ne moo gën a jege pour mu fay rentre tous les soirs di ñëwaat dafay donc ñu amoon mébétu tabax li nga xam ne moom la ñuy tuddee maison de vie am nañ ci yéene aussi am nañ ci yaakaar parce que am nañ ci ñu ci war a mais ñu ñaan nguur gi aussi euh, bi nga xam ne digoon nañ ñu ko à Diamniadio ñu jox ñu ko bu ko defee bu centre national d'oncologie boobu taxawee à Diamniadio ñu mën fa taxawal maison de vie boo xam ni ñi nga xam ne sax jóge nañ Dakar bu boobaat nañ ko soxla. Hmm. parce que jóge Dakar du dem toujours Diamniadio bu yomb waxoon fi ma laa nga jóge fi wala Tamba wala ak fu ñu mën a doon ba pare tamit mébét tamit euh, nga xam ni comme euh, fa li ñuy wax euh, Touba hôpital bu des dañu fa tabax am na lu ñu tuddati unité d'oncologie ba am na radiothérapie mm-hmm. foofu tamit malade bu fekkee dañoo nar a jógee fii Dakar ñu dem foofu ba tey dina xaw a parce que duñ fa am famille d'accueil foofu tamit buñ fa amee lu mel noonu dina dina dina nekk lu baax dina nekk lu am solo day di wax ni tamit euh, aujourd'hui am na malade yoo xam ne xam ne xaw nañu nekk dans le désarroi ci tëju hôpital Dantec bi xam naa su ma ci waxul woon sax di ko laaj ndax ñu tëj moom contre ñu ko parce que il faut que ñu defaraat bu bees parce que hôpital bi dafa yàgg dafa màgget malade yi dañ nekk dans des condition extrêmement difficiles malade yi ci nekkoon dans de bonnes conditions c'était les malades qui étaient à l'institut Jules Curie au cancer te li tax ñu nekkoon dans de bonnes conditions mooy LISCA moom moo ko dugal loxo moom moo réfectionné woon l'hospitalisation def ko muy clinique fexe fa tabax une salle de chimiothérapie boo xam ni da doon permettre capacité d'accueil en chimiothérapie hôpital Dantec presque ñu doublé ko donc loolu ñun ñoo ko fa defoon mais aujourd'hui hôpital Dantec existé tout donc euh, li ñu xaw a précipité rek euh, toxu bi ñun moo ñu xaw a metti parce que Euh, xaw ma à partir d'aujourd'hui mais fan yii ci ginnaaw daal am na malade cancer yoo xam ne defuñu seen chimiothérapie faute de place parce que dañ leen dañ leen a orienté à l'hôpital Dalal Jàmm déjà capacité d'accueil ak lu mu wóor li mu yore nga jow yam ko leneen te mettre toutes les conditions yi ñuy wax quand euh, ministère de la santé ñu jàpp ci boor boobu daal ba xam ne malade cancer yi nga xam ne war nañ def seen chimiothérapie ñu koy def correctement

Euh, xëy na début bi nag xam nga Sénégal dañoo tàmm di ñëw euh, ca ca ca ca fin en général di dañuy constaté dañuy bàyyi ba ci catu weer yi ñu gis le grand rush mais actuellement nii quand même bi ñu am ñi ci ñuy ñëw di ñu seet si euh, mën nañoo wax ni ça mais donc dinañu gën a accentuer information bi pour nit ñi xam ni fii ci Sacré-Cœur 3 nekk rond-point JDC nga xam ne mooy siège LISCA am na fi ay consultation yoo xam ni du. lundi au samedi boo ñëwee doo dara euh, dañ koy def na tout le mois avec des de mammographie euh, soit subventionné ou gratuit. ci at bi yëpp non ci weer bi rek. lañ ah, koy koy def. léegi de weer bi. nag dañuy am ay programme soit ñu am partenaire boo xam ni def ni ñu ah, bëgg naa ànd ak yéen liggéey ñu def benn dépistage wala ay personnes de bonne volonté ñu ko bëgg defal seen dëkk. d'ailleurs suñu programme sax allongé wu na ba fi mu toll nii mois de novembre sax am nañ ci programme mel ni Ngaye Mekhe nañ ko dem ci mois de novembre parce que dañoo bëggoon ci octobre bi mais calendrier bi dafa xaw a ful donc dinañ dem tamit ci deuxième euh, ci fin wu octobre bi euh, vers la Petite Côte ak euh, suñu benn partenaire bu ñu publicité ñu ko mooy parce que ñoom comme zone boobu ak koonu Ndayaan ñu ngi def ko ñu Ndayaan les environnements fexe fa def nag dépistage mais du yem ci dépistage rek dinañ former sage-femme yi jàngal leen mën nañuy dépister cancer bu njurukaay euh, jàngal leen tamit noonu la ñuy saytoo weer jigéen ñi bu ko defee bu ñu fa jógee ñoom ñu mën ko mën ko ko euh, daal la ñu taxawee ci weeru octobre bi euh, ci ale bi yëpp nag tamit ku fi ñëw le siège ouvert de 8 h de 17 nga fa fekk yoo xam ne loo soxla ci information bi la ko incha sa kaddu bu mujj la mooy nekk sa kaddu bu mujj suñu mooy euh, lancer appel au bonne volonté. parce que bonne volonté yi quand am na ñu jàppale. Euh, lu mel ni daal jéeg lu jëm ci koor bi am na kenn koo xam ne dafa dégg ñu def prix de cœur ñu amatul lu ñu jàppale maladie ñu yëkkati cinquante millions def ko dans la jox ñu ko maa ngi ko jox ñu leen jàppale ko malade bu malade cancer yi kooku lan la vraiment sant ko bu baax mais ñu koy ñaanal aussi ah, ñu bari ñu mel ni moom am nañ ci Sénégal nañ nga xam ne LISCA daal ñu ngi fi pour jàppale malade yi et actuellement ñu nekk nañ maa difficulté difficulté yi nag li ko indi surtout mooy xam nga depuis Covid bi def ñu téléthon parce que téléthon moo doon pratiquement suñu principale source de revenu ci lañ doon am xaalis bi ñuy jàppale malade mais bi Covid bi ñëwee ak léegi defuñu ko euh, xaj na dinañ ko waajal pour defaat ko ndax mën a continuer vraiment suñu liggéey mais euh, di wax ñu aussi LISCA kuréel la moo xam ni 18 association ñoo ko composé association bi ci def liggéey bu rafet mais ñu ciy remercier au passage aussi euh, les pharmaciens du Sénégal ndax fu ñu taxaw rek ñu taxaw ci wetu LISCA à chaque fois qu'il di a des difficultés ñoom dinañu apporter seen contribution ci liggéey bi nga xam ne moom la LISCA di parce que ñeneen ak ñeneen des de bonne volonté xam ni peut-être boole dañ ñu fii des sociétés yoo xam ne dañuy accompagner même accompagnement bi sax du quelque part rek financier. mën na nekk ci ci ci ci ci ci yu fànn yu bari daal. Mm-hmm. yu fànn yu bari. waaw di wax ni tamit am nañu accompagnement à part accompagnement financier am nañu accompagnement psychosocial boo xam ne moom la ñuy defal les malades du cancer parce que dañ ko soxla. daje benn gis fii ci suñu cours bi. waxtaane feebaru cancer ak malade nga xam ne ñu ngi leen soog a daal waxtaane feebaru cancer ak malade nga xam ne faj nañ ba wér mais waxtaane feebaru cancer aussi nga xam ne day am toogaayu assistante sociale am bu ko defee ñooñu ñu leen fi def bu ñu leen defalee bu ñu génnee fii général bu ñu delloo ci seen docteur danaan leen wax di yàlla xaw ma kan moo leen doon defal waxtaan bi mais jox la leen espoir ba nga xam ne euh, ñoom dinañ yaakaar ni ñu war a mel nekk ci seen feebar boobu en tout cas en conscience ci liggéey waaw di leen remercier nag yéen waa Seneinfo point net ndax euh, wax naa ko sama njàng génn wax euh, li ñuy def nii su dul woon la presse du sori mais grâce la presse li ñuy wax ñu mën a des foyers pratiquement insoupçonnés donc euh, ñu ngi di remercier bu baax di leen wax ni suñu buntu ubbeeku na pour yéen durant toute l'année bu leen ñamati ci octobre rose rek pour ñëw ci yeneen fànn bis yi sax la ñuy gën a ëpp jot pour mën a waxtaane lu bari ngeen xam ne ngeen mën a am la présidence de la LISCA tey ci ñun ñu ngi ci tool ñu toog durant tout le mois d' octobre mais euh, bu ngeen ñëwaatee daal peut-être bu octobre bi ma gis dinaa fexe bu yoon interview bi moom ngeen koy defal bu ko defee mu am ci ndax moom euh, mooy président de LISCA ba pare nekk cancérologue am solo ngeen toog waxtaan ak moom di remercier aussi tous les membres du conseil d' administration di remercier bénévoles yi ñi nga gis ñu ñu toog c' est des bénévoles qui se donnent à fond ci liggéey bi nga xam ne ñoom la ñuy def muy njëkk lu am importance parce que tey jii nii suma ma soxlaa chiffre yi ñu defagum fii pour en parler si ñoom laay rek ñu jox ma ko ni commencé liggéey ñu leen def nii euh, samay kàddu di sant di leen gërëm jërëjëf. waaw lay sant bu baax a baax di fàttali ne kon yow yaay chargé de la communication bu Ligue sénégalaise contre le cancer euh, di LISCA yaakaar naa nag lañ ci jot a waxtaan am na am na solo lool. solo te it ñi nga xam ne ñu ngi ñuy euh, déglu euh, gëm naa nit dinañ si jëlee dinañ si jëlee njëriñ euh, di la jaajëfalaat bu baax monsieur Omar Diop di jaajëfal it mbokku internet yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel saa su ne di leen jox dig la jogoon la yàggul dara rek bu leen invité ci beneen